ku baax ku tedd ki noo ngi lay siyaare bu baax te di nuyu ci turu Serigne Bassirou moom Serigne Fallou ak mboolem ñi ànd ak moom ci liggéey bi di leen liggéeyal ci alquran alquran mi nga xam ne mooy tool bu sëriñ bi te sunu borom donnale ko ko moomale ko ko defal ko ci lu mu mës defal kenn mu def ci lu kenn mës def. mbooloo mi ànd nag di ko ci liggéeyal ci tool boobu ñoo ànd ak man ngir siyaare si la ak sant si la ci li ñu weesu lépp bi nga xamee ne da nga fay nekk ak say kilifa doon seen jëwriñ luñ mas a nekk lu ne ànd nañ ci ak yow bi nga demee ba doon sëriñ bi it buñ jaaxlee ci seenub liggéey dañuy del si ba ci yow leeral la fi ñu toll fi ñu toll nag li ma ci njëkk a fàttaliku te barab bii tax sama xel dem ci mooy man mii li ma ci dugal mooy damay doomi sëñ daara sëñ change bi bi mu doonee doomi sëriñ bi ci boppam daa féetewoo jàngale mu di liggéeyam kon doomi sëñ daara laal lu laal daara laal ma waaye dafa mas a ñëw tiib gii seeti sëriñ Basiiru sa waajur wu tedd bu baax woowee bàyyi gi mu bàyyi tukki booba tax biñ ko ko yëgalee mu ne ndax day saaliwu damaa defe ne ma dikki dafa juum mu ne ko moo ne sang yi boo de ah dafa naa ne saaliwu xoolaat ko bu baax xoolaat ko muy moom mu naa ah, bisimilah kon mu ne ko ah mbaa jàmm la lu xew <laughs> mu ne ko jàmm la xanaa namm la ba mëntumaa toog rek ma tax ma seet si la yaakaar la jiitu loolu dana jege ñaar fukk la ñaar fukk ak lu topp yu mu gëj mbàkke ah, maanaam bi mu egsee mbakke sax dafa soppi ko ci moom lool ndax gëj gu mu fa gëj yaakaar li may wax lépp yaa ma koy gën a xam ndax daaw leen gëjee te daa ngeen waxtaan waaye nit ñi laa bëgg ñu xam li may wax mu ne ko waaw waaye yow moom del toog rek ndax li ñu war a ne li ñu bëgg ne ñun ñëpp war ci aane nu ca nekkal te mooy alxuraan kon nag ñëpp la war a seet si waaye war seeti kenn yow toogal te ci liggéey ba rek liggéey boobee mu ne nag te ñoo ñëpp ñu nangul ko ko moo may tey jii ma mën a ànd ak waa alxuraan ñëw seet si la seen bat xonq na jaaxle nañ jàq nañ fam nañ kenn ci ñoom tëj ko tëj doomi daara tëj waajur ya te mel ne nar nañ leen a toroxal ngir liggéey liggéey li ñuy liggéeyal alxuraan te yemut ci loolu njëkkoon naa am te mi ngi wéy di am te gag nañ jaaxle nañ toolub jàmbu nag boo ciy liggéey ba gis loo xamul da ngay dem ci borom tool ba yëgal ko ko ndax yaa fi nekkal sëriñ bi te sëriñ bi moom alxuraan maa ngi fàttaliku bis boo xam ne bi ñu indee article yoo xam ne arrangé wu daara yi la leen neex lañ ci bind te loolu bu wéyee du baax ci daara dañoo ñëw ma ànd ñu ba sëñ Sidi Muxtaar ñu leeral ko ko mu ne ma demal ngeen dellu te seen xel dal sama bakkan ko fekke liñ wax li liñ liñ ci wax du am du am danaa ci taxaw bay ba ngeen dem sama bakkan du ko fekk seen kanam yéen ñëpp yaakaar naa ma jàpp ne loolee mu ca def it yéen a àndandoo liggéey ba ndax lu ma ne lu ne yéen ko ànd te lu mu def yow la ko defal te foofee mu ne it fi nga ne nga dolli ci nag yow sa waaru bopp boo xam ne alxuraan dafa bokk sëb liggéey xam-xam dafa bokk sëb liggéey ku la xam-xam loolu lii nag di loo xam ne ñaari yëfa ci am da ngaa yilif njaboot gépp sañ leen a di puso it buy ñawee ni ko sa waajur wa nekkee woon ba gis nañ ci réew mi li nga fi ñaw lépp lu jaaxaloon ñëpp la kon bu ñu demee ba alxuraan jaaxle war nañoo ñëw boo leen digalee ñu def boo leen teree ñu bàyyi sart yi nga xam ne nag moo dox seen digg ak luwaaye te luwaaye mën naa ne li ci ëpp ay organisme international la yoo xam ne doxuñ ci lislaam atte woowuñ ci lislaam te man la mu yaxkum bi ma ansala allah fa ulaika humu zalimun wala fa ulaayikumul kaafirun wala fa ulaayikumul faasiqun luwaa yoo xam ne ay nit a daje ba mu neex leen ñu ànd ko bind bu ëllëgee mën nañoo xëy xëy dindiwaat ko nituk lislaam du ca mën a tënku cent pour cent maslaa ko cay bàyyee waaye du doon lu mën a tënku mel ne nag luwaa yooyu dañoo moomut seen bopp ba di ci tënku luwaa ci bitim réew lay jóge ba tënkaali leen waaye lam leen di tënke mooy da leen di won ne gone gi kenn waru koo tëj gone gi kenn waru koo jëng jëng moom mi nag di lu fi yàgg neexu fee dindi neexut a bàyyiloo nit ñi lu dul nag muy sa ndigal ñoom ñii boo leen ne bàyyi leen jéng ñu bakko ko ñi leen koy tere it boo leen ne bàyyi leen ñu continuer jéng bi ñu bakko ñu ñu ñu bàyyi leen ñu jé ñu continuer waaye daal li ma gis mooy buñ ci waxut duñ jóg ci lii di jaaxle bisu seen ñu jàpp kenn ñu ànd ak ñoom ñëw ci yow te loolu moom dañ ko war a lijjanti mu féete boor benn yoon mu jeex njaboot gi yow la ñuy déglu boo joxee sa kàddu ne digal naa leen ngeen bàyyi jéng kenn bañ a jéngati mu jeex mën nga leen bu la soobee it nga wax ak ñi leen koy tere leen bàyyi leen ñu am jàmm ñoo xam nu ñuy yare seen i njaboot ñu yare ko de waaye daal jaaxle nañ jàq nañ te yaa fi sës kii nga xam ne jàpp nañ ko itam bu ñu sañoon lañ ci bëgg ñoom dañ ko ci am ndax buñ ko ci amee muy kersa ci ñoom di gàcce ci ñoom te mooy dañ ko fekk ci liggéeyam jàpp ko tëj ko toroxal ko fa waajur ya jàppale leen toroxal leen te suba dañ koy atte lislaam nag bëtam xonq na te yaa fi nekkal sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa fi nekkal yonent bi yor lislaam kon nag ñoom biñ jaaxlee tamay doomi daara moo tax ma ànd ak ñoom ñëw ci yow xamal la ne ñii jaaxlee tax ñu ñëw te bu moog la ko jébbalee man wàcc naa loo leen wax ñu def loo leen tere ñu bàyyi ñu itam noo ngi jéggalu kàddu yi dañoo jaaxle te amuñ lu yow rek moo tax ñu ànd ak ñoom ñëw jërëjëf. xalaat yi yëpp it maa ngi ci. alhamdulilah. dafa am fu mu leen di nekk nag. Mm-hmm. Mm-hmm. lii sax daanaka mën na mën na mën na koo mën na koo doon. Mm-hmm. yónnee naa ci. Mm. nañ bàyyi ba xam. nu mm. ñuy def nu ñuy atte. foofu moom mën na doon tàmbale. te lu mel noonu laa doon nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu lii yàgg yàgg naa ko xalaat bu yàgg. Mm-hmm. yàgg naa ko xalaat bu yàgg ndax euh, suñu daje mu rëy mu fi defoon Touba. ba suñu Abdou Assis. Touré boobu waxee lu ma ko wax. waaw dégg naa ko tey ci man ba léegi. boobu ba tiit maa ngi ci. waaye dafa am bu ma leen dégg néeg gi nag loo mën mën naa mën naa bañ a mën naa bañ a yàgg ndax maa ngi leen déglu ci àtte boobu bu ñu àttee ba noppi danaa xam ne alhamdulilah alhamdulilah xalaat ji ma xam ne maa ngi ci woon mm-hmm. muy xalaat ji mm-hmm. danaa seet mm-hmm. na ko ànd ak yi jullit yi fi mbokk kilifa diine yi fi nekk mhm. ñu waxtaan mhm. wax leen bëgg wax leen bañ wax mhm. nos foofu rek la ñu ndax ndax mbirum mbirum réew la du mbirum moo xam ne dañuy wax rek mbirum réew la mbirum doxeenu réew la te réew mi wax dëgg yàlla réew mi islam ba quatre vingt ci amatul lu dul nag faj ci lu naqari Eh, loolu loolu loolu su mbokkat mënu ko war ko mën a fekke ndeysaan ndeysaan su mbokkat bu ko mën a fekke ndax alxuraan rek la am ah, wallaahi wallaahi bak wallaahi bak islam kon loolu na ngeen xam ne ci ngeen mu fekk fi ngeen mu fekk nii ko suñu waxee nii la nii la nii la ci nekkee ba ba ànd ceeg moom maa ngi ci yii ma leen wax fekkoon na ma. ma wax ko sama làmmiñ ma wax na am na loo xam ne mu buñ ci àggee. man damay woote damay danaa woote kilifa yi diine yëpp ci Tuuba teral leen nu waxtaan seet leen bëgg ak lan bañ. mu déposé ko moo xam ci président la jëm moo xam assemblée la jëm loolu rek koy faj. waaye wax yii génn du tëj génn génn du ko faj. wallaahi ak jërëjëf koy dañ koy delloo ci yoon. dañ koy delloo ci yoon constitution bi. dañ koy delloo. waaw benn ñu ñu nangul ñu liñ bëgg. wala ñu مصبي صبي سين كوسين هذاك ولا لا جرجف بك جرجف يا ريتك جرجف بك المهم فين تجي المفك جرجف ما سوني جرجف بك آه، لا لا لا لا لا لا لا لا فون اندو نيكريك فون اندو نيكريك فون اندو نيكريك فون اندو نيكريك واي نيك لو ما كناك نا داي اتي سو ما كي ديغلو اتي بيك توركل ما اتي بن فكر ني ويفل باي وتا ما ما كنت داخل على الدموم سين مشات ننقم ننوي من عندنا واي بوفك انت عطني سين اتدفلنج بقدر فقوم دو ما دو ياك بس لاي دادي ووتي كليفه دينا يب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين alhamdulilah loolu ci ngeen ma fekk. jërëjëf Mbacke jërëjëf dal nga suñu xel lool dal nga suñu xel lool dëggal nga suñu yaakaar jërëjëf. dafa fekk ne dafa fekk rek. Mhm. il faut que nu maslaa. Mhm. waaye waaye nag. Mhm. mën noo ñàkk nag. am na loo xam nu ko ñàkk. yem fu mu yem. am foofu fu mu a <laughs> mm, mën nu ko ñàkk te lool dañ koy topp. dañ koy topp ak ñoom. muy doxinu réew. waaw ba mu dellu ci ñu ànd ak ñun ci ñu bëgg wala ñu ko topp ko si tabarkal tabarkal tabarkal tabarkal war na leen waaw rawatina Sénégal gii sëñ Tuubaa nag waaw moom kooku moom wóorul la mu ñëw mu alxuraan wóorul ci am mën a mën dara alhamdulilah Moussa Moussa jot na cant gi waaw sëriñ bi asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu mbooloo mi di la ziyaara bu baax di la jéggalu bu baax alhamdulilah di feddali suñu njëbbal ak suñu taalibe ci yow gis ci yow rek jëmmi sëriñ Tuubaa ji gis ci pas-pasam ba gis ci bëggam ga gis ci liggéeyam ba yàlla na nga fi yàgg lool lool lool te wér lool lool naa dem yi nga yóbbu ko yëpp ba mu sës rëkk te ñu ànd ko yow suñu xel dal na suñu xol sedd na dañoo waxoon ne buñ dikkee fii fi yow bëgg nga dikk sëb nopp loola ñun suñu aajo faju na mm-hmm. man nga ci zahir man nga ci baatin benn bu nekk boo ci jógee ayoon na faju te kaddu yi ñu fekk nga wax ko te saa saa bu ñu masee tase ak yow wax nga ko xam na ne yow yaa ngi ci yaa ci ci nga nekk ci lañ lay fekk bu ñu demee ci kon gëm nañ ne yow yaay suñu wéttal yaay suñu ndimbal yaay suñu jëwrin te mat nga lépp sëkk kon ñu ngi ci sa gannaaw di la yaakaar te wéeru ci yow la làqoo te la ñaanal faw di la seedal Cheikh Abdou Samad mii sànq ci yor dama ko nuyu mu ne ma gëj naa laa gis ma ne ko jàmm bari rek waaye saa bu jàmm ñàkkee danga nga ma gis da nga gis sa morom saa bu bët xonqee ba suñu xel dem ci yow suñu xel dem ci moom def ko muy suñu hamzatu wasl boo xam ne suñu diggante yow moo fi dox saa su nekk te yitte ji ñu am daara yitte ji mu am mooy yitteem moo tax moom it ñu ngi koy seedeel di la seedeeloo ci sa kanam di di ko ñaanal di sàkku nga ñaanal ko ba nga xam ne yéenam yii mu am ci liggéey la liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp dina àgg. di sant bu baax di gërëm bu baax. wala ngeen xam ne ñu daal kenn leen ci yéen rek loolu <laughs> rek mooy li ci am solo kon. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan